doy wax. Mm-hmm. di wax gars yi rek loolu la tudd Arafas gars Arafas moo ngi si jàmm ngi si entraînement yi moo ngi bu baax a baax a baax amul lu ñuy xaar kon boog adversaire bu ñëw pour pare bëreeg ñun rek pare na yow ak munti doon amul leneen. Mm-hmm. Hmm? mais mais mais mais adversaire bu munti ñëw rek. dajeeg moom ak koo munti doon pare nañ pour bëreeg yow. mais mais yan qualité nga gis ci Zoss mii yan qualité nga gis ci Zoss. tey jii ba am envie. champion la yan qualité. champion la mbër la. champion la mbër. am na luy ruus sa ginnaaw boo ko mënoon a wàññi tuuti ko dina xaw a kii ndax son baa ngi ñëw ba fii. mais Ada Ada Ada Ada yaakaar naa ne. waaw dëgg la dafa daan ay moom moo ngi nii man maa ngi nii kay amul leneen amul leneen lu ñuy lu ñuy waxati. mais lan nga gis ci Zoss bu bëgg a bëri moom. champion te dafa daan ay sant yu nekk làmb ji yu yu yu jaww jamono ji. waaw voilà. Zoss hmm? alay fay falam mais jos xale bi dala jox benn cër bu doy waar ci wàllu làmb mooy gis naa ko mu naan loo wax rek mu ne jos champion la ndaanaan la non joxuma ko laajee dala jos champion la non joxoon cër du naan ma ay ay ay ay ay lijjantiwul ma ay aaru aaru ma lijjantiwul <laughs> man nan laa war def man su ma lijjantiwul su ma ba ara li fas ni li jentu ma ci la la war def man ki daan ara man oui ma ki daan aara pour man man man ndo la sama nekku ci ki daan ara mo na la sama boy sama écrit ne la ah, fa la jaar zarqo zarqo mu taxawna jox la ma zos zos ñepp bëgg bëre ak man ma amu problème adversaire est ay dégg bima duggé rasulallah la ndako jox wax la togn la wax ak yow mais timman di xaw ma nii ay nii ci bëre musuma sa avance est-ce ay dëgg li ñu seq ça va ma dal ay dëgg kon yow ban avantage lay am su may bëre yow ban avantage ban avantage la ban avantage tàggu sax bu dee def naa ko waaw kon bul jël avance bi nga ne amul amul non day jël avance bi daa war a taxaw. Adama man dama la soxlaawu ma la lijjantiwu ma la yow. wala bi soxlaawu ma la lijjantiwu ma la yow. Ah, soxla moo tax avancé wu lijjantiwuma la yow dama nga uti sa morom man du ma sa morom ci dama nga uti du ma sa morom man du ma sa morom ah, ma di ma ci naa ma tapet amoo respect pour yow lii fit la da nga am respect dama see xule yow sax toog ci ay Instagram naan tapet laa yow guerrier nga man dépassé loolu mais dama ne amoo respect amoo yar amoo yar amoo yar fooy dajee fooy dajee fooy dajee ak man amoo yow amul naa ne ma fay nga ne ngay daje ma fooy ma man yow seeroo fooy daje man promoteur yi de amul naa ne ma fay amul mu xaalis eh eh eh yaa sa promoteur bi yéen a kii li ngeen li ngeen loolu yooyu bu loolu la ñuy dajee dama nga toogi ba seer si Sero, dama nga togi ba sen. Sero, am wor la. Way sero bu yow yow xaalis, yow xamo xaalis boy yow nga xala xamo xaalis. Man xama lu 100 millions yow xamo xaalis. Dama nga togi yam sa place, dem say moro nga bëre ñom. Sero, amul morom. Dama nga togi nga ma ay tapet ak ay Yow da nga dof xana. Yow man may juddo Pekin. Ah, yow yoro geje way magé passé Medina nga nan ma ay dang dof nga am ay affaire de tapet yo da nga dof xanaa yow yow moo doon jël pees bu sam gëñ jàpp ko nii naan ko kii suñu wax ne da bu ñu rek bàll bi numéro dof xanaa ay waxu tapet ngay ay waxu fit ak yooyu noonu dama wute yar moo gën ci communique mal ñu lay jàng communication dama nga jàng du kom man dooma tiim naan ma ji yooyu amul ci man mais ngeen ma fay yàgg sa promoteur du dara léegi léegi léegi waa léegi Mansour dañuy àggali. yaa ngi fekk si Instagram bi. yow taxawoo maa jóg taxawoo maa a yow da nga ma tax a jóg. dégguñu la Ada dégguñu la waxal baax. bu du bëree laa bu ñu sant di nga wax li nga doon wax nii yëpp. yow buñ de buñ de rek maa sañ a xool yow. bu du bëree man ak yow. dama ne la dañ dañ leen dañ ma ne ma sañ nga lool Zos. dogal ma man sañ nañ nga ma bi ay faram tamadu borom man ma man sañ interdit man ma dag yow day expliquer kon barki fu ma lay dugg defo luma neex nga ne. waaw for la. xam nga. xam nga sama mbokk laa ma mais combat bi combat bi waa déglu ma Zos Zos Zos am na benn promoteur bu dugg si. seerul fii fayal ma kii seerul kii fayal ma ma mbër bu kii mbër bu mbër bu seerul fii kër moo tax ngay jëm a taw tàng jër faram daal sa bëgg naa bi daal vraiment day neexum lu yàlla moo tuba ay mbër seerul fii di mën di lay wax yu bëri fii ah waa defal ndànk defal ndànk jos wuy ma Pape Souley bu Mougét dañuy waaj a tëgg deuxième journée bi te dañoo amoon problème combat bu fekkee Fallou Ndiaye li la fay baaxul Pape Souley ci géew bi bu la neexee ma dugal ko bokkul woon xaalis du leen yow mu yow yow daal da ko waa ñii ci ci seerul booy bi moo seerul wala déggoo li ma la wax booy bi seerul yow waay yéen waay kii Fadam nga baal ngay def tamit on a ki di expliquer explication yu bëri de booy bi seerul seerul leer laa lay wax. mais Fall mais lu Ndiaye Fallou Ndiaye nee na. li Fallou Ndiaye wax dëgg yàlla li ma fay vraiment sama samay oto moo gën a seer Fallou Ndiaye li ma fay. jox ma du ma jënd oto mu gën a seer lañ ma fay kese munu munul nekk yaa ngi may dégg oto bi may génnee la wax ma la may doxantoo bi may génnee laa la wax. dama dem samedi ba samedi ak vendredi su ngoon laa taxaw taxaw di xaar pour tàngale ji boobu laa moo gën a liñ ma kii di fay liñ ma fay nii. mais Ada Ada gën a mag li guddi. dañuy waxtaan dañuy waxtaan. dañuy waxtaan moom mbër la moom mbër la dama koy ñaan yàlla carrière mu dem def carrière. dem na ko moom kenn werante wu loolu. yaa ngi mais Fadam man dama fayeku fayeku dama fayeku dama fayeku cent millions ci làmb man xam naa luy xaalis yaa ngi dégg. keroog Fallou Ndiaye bi ma woowee mi ngi ñu dégg li ma fay du ma ko bëre xalaatu ma ko xalaatu ma ko. ragal nga tapen nga duma yow yu yobbu lamb ji lamb ji man kana la man I need money you know I'm saying you bring money up take this fight tego combat xaalis duma duma wax ak yow li sax surprise ci man da waxo man koy duggal asa ay de baax parce que mo mo di expliquer gauche droite xaalis gennul man goma yoy na xaalis genn ok serul serul duma ak mom est-ce que ay dégg aw ma problème boobu ana sama Moussa sama combat Moussa Ndoye gars yi ñu ngi woon ci di ci avancé pour man loolu moo tax nga woo ma si Instagram bi dëgg la yow teg nga sa beneen neex sa beneen page ba kii Moussa Ndoye ñu la mun ngaa nii baala ñu wax le ñu baala ñu waxtaan ñoom baala baala ñu waxtaan mais li sa problème mais aada am nga loo mais aada am nga looy tàggoo am nga looy fa mhm. ndax yaakaar naa ne Zoss taxaw na ne man bañu ma aada Fass mais la ko njaay Ndiaye fay la bëggul am na ki droit aada Fass tamit nee na Fallou Ndiaye kese ba nga bu la neexee daggal nga jox Zoss ndax mu bëri man loolu am nga ci droit kon tey jii Moussa Ndoye bu yarax boo ko wooyee mooy moo waxoon day ñëw ci live bi jàkkaarloog Zoss mais damaa live aada Fass gis daal di may woo pardon boo gisee mooy waxee noonu nit danga nga jox cër bi nga ko war a jox ay dégg nit da nga jox ci ngir parce que nit taxaw na keroog bi ci taxawee gën kay ne taxawee di am lu mu expliqué ci man Gaston ne ko kaay ma jox la jos ñaan ma ne ma jël Gaston mi ngi may dégg sunu peer la ne ma wàññil sa ci nga jërë gën kay dama ko ne loo wax loolu laay def bi ma demee jin kay rek mu jëloon ci moo morante di du dof doflu yaa ngi dégg mi ngi nii temps yi passé promoteur moo demee jin kay ma ne ko jëluma ko parce que ni mu communiqué moo baaxul est-ce que yaa ngi dégg yaa ngi mu communiqué moo baaxul moo tax man du ma mës taxaw ah ma ne ko yow aada ñii nii wax wax bu ñaaw boo xamante heure si damay toog comprendre na comprendre na ma ne ma yaa mu waxoon wax ji yaa ngi dégg man dafa am nuñ ma yaree état réew na baax sous estimé wu ko ba léegi ma lay wax yow nii comprendre nga te du ma laal sadik laa du ma laal galas dama lay wax barki alxuraanu karim mais juste que non demul dañuy man dama wax nii dama dem ko juste que dañ ma fay si contraire dama jàpp ne liñ ma fay bu doon toll nga moment bi ma bëgg man nga war a seet ñu war a jàkkaarloo signature tegalante lu tar diñ ma fay kon prix mais du lii nii nii nañu waxante dëgg du ay weccet kon ça dit que ma ne kii màggagul Ada Fass sa fant la. Ada Fass rek lay xool di ree rek. booy bi bëgg. di tase ma loolu de. mais man Ada Ada jos neel du laal glace. jos neel du laal lu sedd <laughs> Huh? عارف عايزين مين اقول لك الفرق بيجينا على زو اسماعيل maa ngi bu baax fii di la ñaanal sutura kontaan nañ ci yow jërëjëf Ada jërëjëf jërëjëf la grand champion Ada merek nag tey jii tey nag Jos mais Jos li ma jaaxal mooy mbër yëpp dañoo bëgg bëri Jos mbër yëpp dañoo ku ma ci bëre dinaa la daan dem ku ma ci bëre dinaa la daan suñu borom ba ci Ada Fass mi génn léegi bëre naa la daan wala déggoo ma la wax fa faram loolu ngay wax faram